jërë ngeen jëf mbokk yi jot nañu ànd ak Barthélemy Ngom ci xabaar yi ci. wolof ci gàttal asalaamaaleykum Mbart. maaleykum salaam Babacar ñu ngi lay nuyu nuyu mboolem ñi ànd ak rajo Futur Média boobaak léegi xibaar yi li ci gën a fës Cheikh Agibou Soumaré garde à lañu ko def gannaaw ba ñu ko dégloo ba noppi euh, ca sûreté urbaine ni ki démb avocat am rafetlu ni audition bi demee maître Mame Adama Gueye yokk ci ne ba fii xamul li ñuy toppee kiliyaanam ndax ba tey ñu ngi ci enquête préliminaire bi Yewwi Askan Wi nata nasaat na beneen ab manifestation fukki fan ak ñeent ci weer wi lay doon Ousmane Sonko bokk ci leader yi euh, yokk euh, addu ci nee na am wala ñàkk autorisation la ñu yemale manifestation bi dana am muy neex wala muy naqari réew Sénégal réew la bu nga xamante ni daal àq ak yeleefu doomu aadama yi respecté nañu ko bu baax Ismaïla Madior Fall euh, ministre de la justice euh, euh, moo ko xamle démb ca Mbuur ci bi ñuy amal ndaje ci lu ci jëm maître Ousmane Seye tey la ñu koy jébal suñu borom ca Touba levée du corps bi ci kanam tuuti bu 10 heures jotee la ñu koy amal ca hôpital principal ab Ndakaaru tàggat yaram des na ci ànd ak Cheikh Tidiane Diagne xibaari aday Ana Rocha yéenekaay yi la ñuy jeexalee daañu ci ànd ak Mamadou Mouhamed Ndiaye. Abdou Thiam moo fare ci machine yi mbokk yi nuyu nañ leen rafetlu seen a ak rajo Futur Media xibaar yi ñu toore kook euh, maître euh, Ousmane Seye mi génn àdduna ni ki démb euh, tey jii la ñu koy jébbal sunu borom ca Touba. levée du corps bi nag ci kanam tuuti bu 10 heures jotee la ñu koy amal euh, ca hôpital bu euh, Ndakaaru maitre Ousmane sey euh, génn àdduna ni ki démb gannaaw ab malaise bu mu def ñu wax ci tiis li fële nga xamante ni moo di ci commune bu Kéréwan nekk ci département bu Médina Yoro Foulah benn incendie moo fa am am benn xalel liir bu ca ñàkk bakkanam ay néeg yu bëri lakk nañu ba jeex Abdoulaye Diallo ab lakk bu méttee métti moo daal di xew ca commune Kerewaan fu ab nit ñàkkee bakkanam te ñaari kër daal di si lakk ba ñu jeex tàkk ab liir bu amee ñetti weer moo ci ñàkk bakkanam ñaari kër yi fa jot a tàkk dañoo lakk ba ñu jeex tàkk mu ngi xewee ca Leeba Daaworo ab dëkku kaw bu bokk ci goxu Kerewaan biir département bu Médina Yoro Foulah lakk bu bàyyeekoo ca ba moo ñëw dal ci dëkk boobu daa tombe woon mu amoon ab ngelaw bu doon uuf safara si ak doole ba mënuñu liir bi nga xam ne daa doon ci benn ci xeet yi fa làkk ñi làkkale daanaka seeni benn bagage su sovewul yooye gox doon ay béréb fu wàllu jot ci ndox daal di jafe looloo tax bu làkk wa di am mënuñu woon def dara lu dul xool safara wa daanaka li ni moo xew ca goxu Ndorna RFM Kolda Abdoulaye Diallo. pour man RFM mooy rajo bi gën ko def démb gannaaw ba ñu ko déglu ba noppi ca sûreté urbaine avocat wam di rafetlu nag audition bi di mu demee moom maître Mame Adama Gueye yokk na ci ne ba fii xamul li ñuy toppee kiliyaanam ndaxte ba léegi daal ñu ngi ci enquête préliminaire bi Abdourahmane Diallo Omar Mbow Omar Mbow ngeen baal ma. ci ay booru 17h la avocat Elimane jawriñ la woon génn ca commissariat central bu ndakaaru maam Adama Gueye sol costume bu bleu nuit ak ay souliers yu marron di waaxu jubali ci journaliste yi bilee xibaar lay daal di annoncé. monsieur le premier ministre Hadjibou Soumaré dañ ko woon tey su suba. bi ñuy ñëwee uyu. Euh, ñooñu def ko laaj nañ ko ay question ngeen xam ngeen lu tax ñu woo ko mooy lettre bi mu defoon euh, euh, à l' adresse président la république. ñu laaj ko ci lettre bi mu ñu ñu ci tontoo ñu ngi clôturer laaj ci booru une heure une heure passée ñu laaj ñu xaar donc ñu xaar xam naa nag boobu dossier bi ñu ngi koy delloo ci procureur bi nga xam ne moom moo sante woon laaj bi ak convocation bi léegi nag lañu ne yëgal ni ñoom décidé nañu placer ko garde à vue maanaam téyendi ko. naka noonu la ñu daal di placer Hadjibou Soumaré en garde à vue avocat bi sax ne xamul li ko waral. tuumaal amagul dañ dafa génnoon benn lettre publique jébbal ko président la république si ak ay question si question yooyu lañ ko doon laaj. ba mu tontu ci tontu na si nag ba ba ñu clôturer interrogatoire bi si lañ ñu dañ koy placer garde à vue maanaam dañ koy téyendi. très honnêtement l'interrogatoire s'est passé dans des conditions tout à fait mois ba woon kon dina fanaan guddam bu njëkk ca commissariat central bu ndakaaru loole nag nakari lool militangam yi nga xamante ni teewoon nañu foofe ngir dooleel ko c'est de l'abus c'est de l'abus y a pas autre chose c'est de l'abus c'est de bu Adjibou Soumaré kon jëbal jiitu réew boo moyul dina ko weex xat Omar Mbow Abdoul mbay ak Mamadou Lamine Diallo ñoom ñaar ñëpp ànd daal di ñaawlu garde à vue bi ñu def Cheikh Agibou euh, Soumaré waaye nag kii di abdul mbay nee na daal su fekkee ne amul base de euh, sérieuse boo xamante ni euh, moo lal question yi ak bu Soumaré posé bu yeboo mu baalu ak askan wi Mamadou Lamine jàll moom dafa yaakaar ne bu Soumaré deful dara lu dul samp ay laaj jëmee ci njiitu réew mi gannaaw ba mu dal ba gannaaw visite bi Marine Le Pen doon amal fii ci Sénégal ndongo Abdoul mbay boole ko di ñaawlu bu Soumaré mi fanaan ci loxol policier yu sûreté urbaine bu ndakaaru waaye wutewul tamit ak kuy yedd ki fi nekkoon premier ministre bu Abdoulaye wadd ci li nga xamante ni moo ko yóbbee nag amlante gi mu amlante ak yoon ba fanaan ca commissariat central bu ndakaaru Abdoul Mbaye ni mënee su ta wax ni nag Hadjibou Soumaré deful njuumte ci leetar bi nga xamante ni moom la bind jagleel ko kii di Macky Sall donte ni moom amul fenn fu mu nangoo ni gu nu mel daal dina koy def ancien premier ministre bu Macky Sall bi jàpp nii tamit placé en garde à kii di Hadjibou Soumaré weesuwul doon erreur mu doon erreur boo xamante ni jàpp na it ni mënoon naa ñàkk ndax day tax ba senegal ñu gën a gëm ni nag mi ngi jege réewum jimboor yi moo xamante ni jaay doole kese moo fiy dox waaye Abdoul mbay jàpp ni it bu dee dañu naan looy waxati na lay leer Cheikh Hadjibou Soumaré bu dee leetar bi mu bind jagleel ko Macky Sall teguwul naka ci dara weesoogul ngir nag moom mu daal di jéggaluwaat te bañ a tàbbeeti naka ci li nu mel Mamadou Lamine Diallo moom tamit daal dinay ñaawlu Cheikh Hadjibou Soumaré mi ñu téye naka ca commissariat bu ndakaaru moom député bi jàpp ni bu dee Marine Le Pen kese jarul nag ñuy garde à vue ab ancien premier ministre moom njiitu parti tekki gis ni it bu Soumaré deful lu jar nag ñu koy téye ndax ay laaj kese la daal dee samp ci gise bi nga xamante ni daanaka dañ ko doon nëbb askan wi ci diggante Macky Sall ak kii di Marine Le Pen ndongo ka keneen ku jàpp ne daal garde à bi ñu def Cheikh Agibou Soumaré tegewul si yoon mu di Aminata Touré moom itam nekkoon fi premier ministre nee na ñu ci li ci nguur gi jublu moom mooy humilier ko te loolee du dëgg ci du du dëgg di yoon moom Aminata Touré mu ngi sàkku ñu bàyyi ak Agibou Soumaré nu mu gën a gaawee keneen ku ci àddu it ci euh, di euh, Bougane Gueye da Bougane Gueye ni ki demb njiital euh, gëm sa bopp dafa jàpp ne lii du dara lu dul intimidation boo xamante ni du jàll démb la doon dajeek taskat taskatu xibaar yi àdduna it ci mbiruma eh, mbirum 98 milliards yi mu yëkkati woon fan yee passé mu ngi sàkku nag ci kujje politique bi ñu gën a eh, joxante loxo su ko defee ñu mun a janook eh, régime Macky Sall gile Mariama Diallo teewee na woon ndaje ma.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 benn jegeñaale Mansour fay jox ko ne ko moom moo yor signature moom jiital gëm sa bopp itam di ñaawlu xoqatal ga ñuy teg ci opposant yi te it di sàkku ci ñoom ngir ñu boole seeni doole moom Macky Sall ñëpp waroon nañu recevoir Marine Le ba mu des moom Macky Sall coow li ci nekk moo ko yóbbee boppam te njort nañu ne bu fekkee ne Hadjibou Soumaré ak responsabilité yu mu woote ci réew mi yi mu fi téye dafa poser question li jaadu woon mooy ñu tontu ko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 Euh, am wala ñàkk autorisation la ñu yemale manifestation bi dana am muy neex wala muy euh, naqari naka noonu it dana am euh, ay rassemblement ci ñeent fukk ak juróom-benni département yi ci réew mi Mamadou Omar Ba. Yewwi Askan Wi ñaari këyit la teg ci taabulu kilifa yi ngir ñaari bërëb yu bokkul ñu mën fa amal seen manifestation waaye itamit bañ may lay kilifa yi ngir ñu tere seen méga googu googule Déthié Fall di njiital PRP. 14 bii nu jëm 14 la pour wan le président Macky Sall que ni réew mi mënatul continuer di fi def lu ko neex. déposé nañu teere xaar yàlla bi ci ginnaaw jàkkaarloog Walfadjri déposé nañu teere akapes bi nekk parcelle. buñ sukkandikoo ci Ousmane Sonko autorisation ñu am kook ñu ñàkk ko am dinañ amal rassemblement bi teg ci marche yi ñu bëgg a amal fépp ci Sénégal. meeting bi dinañ ko amal incha allah rawatina nag marche yi parce que Macky Sall moomul réew mi de ma wax ko mu leer en tout cas ku bokk ci man dégg ma man maa joxe ndigal bu ñu leen joxee autorisation marche leen bu ñu leen ko joxul marche leen bu ñu amee ku ñu jël si nañ ma jël si jeex na 12 mois yi di ñëw lu ko mbir mi jaral jaral nañu ko parce que nag yenn yi ñàkk fulla la kon ñuy woo Sénégalais yëpp ci rassemblement 14 bi yeewi askan wi leader bu Pastef les patriotes jàpp ni sax képp koo xam ni da ngay wax bilan bu Macky Sall yaa ngi nax sa bopp ndaxte amul dara loo xam ni def na ko fii ci réew mi. Macky Sall lan la fi def ci réew mi nañ ma ko wax réew mi am na ay usines réew mi mbay mi dox na napp gi dox na càmm gi dox na réew bu amul loolu réew moom existé wul ñuy nax nit ñi ak ay tali ak ay stade ñu ne Macky Sall liggéey na tali yoo xam ne stade yoo xam ne train yoo xam ne benn bu ne bàyyi na fi ci bor li président Malick Gakou doon wax say sëtëki stade dinañ ko fay ba pare ñu surfacturé ko nit ñi bëgg ñu gëmloo ni Macky Sall am na bilan ndax bi naa am na mbir mooy ñaata nit ñoo am xëy ndax ko am xëy mooy yóbbu dara këram. coalition Yewwi Askan Wi ne tey la gën a dogu taxaw temm tere Macky Sall présenté wu ngir troisième candidature ñu ne nag combat bi talaata bi lay tàmbali. Mamadou Omar Ba révision exceptionnelle gi ñu nam ci liste électorale yi fas ko yéene amal diggante juróom-benn fan ci weeru avril jàpp juróom-benn fan ci weeru mai njiital Pastef gi ñu dégg sànq àdduna ci nee na loolee du dëgg du yoon dafa dafa bëgg rek ñu yaatal ko ba ci juróom-benn weer euh, moom dafa jàpp ne euh, diir bi Macky Sall jàpp ngir révision exceptionnelle lu liste électorale yi euh, dafa mel ni dafa bëgg a ndaw ñi ñu bindu ci liste yooya su ko defee ñu mën a dem wote ji ci élection présidentielle gi ñuy waajal. Euh, waa PDS moom euh, ñu ngi sàkku ñu auditer fichier électoral bi donte sax Benno Bokk Yaakaar nee na processus bi mu ngi dox nu mu waree Abdourahmane Diallo. njiitu réew mi appal na révision exceptionnelle yi ci liste électorale yi ci benn weer Ousmane Sonko di ñaaw ñaawlu décret boobu. révision yi révision ordinaire la waroon doon ñu waroon ko def ci juróom benn weer Macky Sall mooy moom mooy Sénégal quoi lu ko neex lay def nee na moom révision bi ci benn weer la koy def parce que yéen jeunes yi la bañ ngeen bindu parce que xam na ne ndaw ñi ànduñoo ak moom te ndaw ñi ñooy 65 pour cent de la population sénégalaise mu ne kon primo inscrit yi nga xam ne ñi joog am résultat ñëpp naa fexe ba bu ñu bindu. parti démocratique sénégalais ñoom ñuy wéy di xamle ni fichier électoral bi du bu baax Maguette si mooy chargé des élections fichier bi dañ ko war auditer mais audit indépendant gouvernement bi dina wax ni def na euh, audit mais audit boobu xam nga kenn nanguwu ko parce que dafa tey xel depuis deux mille dix neuf euh, élection présidentielle bi ak euh, élection législative yi weesu am na lu lu si un million de jeunes yoo xam ni voté wuñu te ñu waroon voté ñi ànd ak nguur gi ñoom jàpp ni processus électoral bi mu ngi jaar yoon Benoît Sambou plénipotentiaire national Benno Bokk Yaakaar milliards prévision exceptionnelle nag ci lu ëpp benn weer la bëree ba bëri euh, ñaari weer la donc dafa wuute ak révision ordinaire wala refonte totale wala refonte partielle nga ñuy wax waxi fichier électoral vraiment foog naa ni sénégalais yi léegi doyal nañ ci fichier électoral bu Sénégal dara gën koo fiable sénégalais yi xam nañ ko àddina xam nañ ko. ba léegi audité nañ ci fichier bi ñaari parti politique yi ak coalition yi di xamle ni dinañu def seen kéemtalaayu kàttan ba képp ku binduwul mën a bindu waaye tamit mën a jot carte électeur am balaa présidentielle 2024 yi. Abdourahmane Diallo ak ak yelleefu doomu aadama yi Sénégal respecté na ko bu baax kàddu yi Ismaïla Madior fal mu ministre de la justice mu ngi yëkkati yile kàddu démb ca Mbuur ci bi ñuy amal ndaje bu ci jëm ba tax na mu ne képp koo xamante ni daal da nga bëgg a perturber askan wi wala boog nga andi ay trouble ci réew mi.

bu yeboo xam ne danañ la teg yoon dana la teg loxo atte la nuñ ko dee defee ci yéew réew yi nga xamante ni démocratie moo fay dox Ismaïla Madior Fall doom ci micro Ndeye Mati Dieng. président Macky Sall nag bi muy ñëwee gis ne dañu dégradé comité bi mu commencé leen jàppale ne leen lu leen manqué ñu ngeen retrouver seen statut à comité bi wax ko mu jàppale leen ci yokk budget bi yokk autonomie bi jox leen siège bu fonctionnel jéego yooyu yëpp nag def nañ ko waaye dañ ne war nañu yokkaat atelier bii nag loolu moo tax ñu organiser ko mooy yoon ci dëkk boo xamante ni Sénégal la dafa am réputation mission di respecter droits humains yi ñu def ba nga xamante ni comité boobu dina retrouver statut ah Sénégal lépp loo xamante ni démocratie la gouvernance transparence état de droit respect des droits de l'homme même léegi sax boole nañ ci croissance économique parce que Sénégal bokk na ci pays yi nga xamante ni ñoo am ñoo gën a am taux de croissance bi gën a fort ci Afrique deux chiffres donc lépp loo xam ne dafa aju ci wàllu gouvernance classement yi am yëpp dañ ñuy classé toujours classement bu baax a baax mun nañu joxe exemple yu bari waaye ñu jëlee rek bi nga xam ne moo ci gën a mujj muy classement Mont Ibrahima mu Ibrahima dafa ne dëkk yi nga xamante ni ñu ngi respecté droit de l'homme ak gouvernance Sénégal bokk na depuis dix ans ci dix premiers pays Afrique yi nga xamante ni dañuy respecté droit de l'homme respecté gouvernance respecté transparence donc Sénégal nekk na dëkk boo xamante ni kenn mënul wax teg ci ay firnde yu leer ne fii kenn du respecté droit de respecté droits humains taxul mu neex def lu neex mu neex nga ne du ma respecté yoon mu neex neex nga ne damay organiser manifestation troubler ordre public déedéet loolu koo def ñu jàpp la jugé la ni ñu war a jugé loolu moom état bi dafay assurer fermeté citoyen bu paisible respecter loi kenn du la jàpp kenn du la bundaxaataal kenn du la jugé waaye ku jóg na ne man lu ma neex laay def lu ma neex laay wax damay violer loi yi naa troubler ordre public dinañu def insurrection ci dëkk dinañu jaxase réew mi di nga gis état ci sa kanam te yoon dina am taxawaay bi mu war a am ak RFM kumpa tàggoo fukki simili ak juróom benn moo bootu ci juróom ñetti waxtu xuus ci xibaar yi dem ci quartier euh, Badalo ga ca Yaraax euh, foofu nag askan waa fa doon manifester ti ni ki démb jàmmarloog euh, ñi ngànk kaaraange gi policiers yi ñu li ñuy ñaawlu nag moo di déguerpissement yi ñu dëkkee yu ñu leen defoon weer yële waa weesu ba tax na ñu ne nag situation bi dafa war a dakk ñu ci interpeller nag autorités yi Salamata Ousmane Diallo booy dugg si yaraax jàpp montagne ndaw yi quartier bi ñoom ñoo daal di mer ba futtu di taali pëna ak di sànni xeer ci loole way takk der yi jël ay grenade lacrymogène di ko jox seen kaw ma ma saxaar si daal na jëppeet askan bi yeewoo fii ñoom la ñu mënul supporter mooy tabax bi ñu bëgg a tabax fii ak auberge Moussa Ndiaye. bëgguñu ñu def ko fii auberge day yàq suñuy xale jigéen ñi te ñun fii lañ entraîné fii lañ am. bu ñu sukkandikoo ci Aram di wax ni ay bës a ngi nii ci jàqare ak jafe-jafe yi rek la nekk di dund. waa ji depuis ba mu ne day tabax ba tey amuñu jàmm amuñu salaam fu mu commencé di tabax xale yu góor yi ñëpp ay jóg kenn taratul lekk kenn taratul naan gis nga man sama añ daa ngi nii noonu laa ko tegee lekk ñu naan ñu suñu doom yaa ngi nii di xëm waa ji dañu may jàmm. mu jaaxle loolu ndaw si ay atam toll ci juróom fukk mu ñëw ngir daal di seet si doomam bi nga xam ni gisu ko fenn. man sama doom bi may wër mbaali jar na nga wër sama doom. mu ngay daal di bàyyi léegi laa wàcc ma ñëw fekk affaire bi taluma def dara sama kër sama doom laay wër nii bu ngeen ci mën a taxawee te ñu jàppale ñu suñu dëkk bi daal bëgg nañu. ay ayu yu bëri askan bi yeewoo ci yaraax di daal di jàmmaaxloo ak ñi nga xam ne ñoom di way takk der yi li ni mel nag dara waralu ko lu dul ak promoteur immobilier bu ñu jàpp ni moom moo bëgg a teg loxo ci seen suuf sile ñoom nag ñu daal di taxaw temb ne loolu du fi amee Salamata Ousmane Diallo yaraax gi rajo Futurs Médias Salamata Ousmane Diallo ñu wax ci feebar bi di nas Euh, nga xamante ne euh, bari na ay cas yu ñu noté fële ca Touba looloo tax autorité yi fa ngan ngànk wàllum paj mi ne daal ñu ngi nasab benn programme de riposte euh, war a soobu nag ci campagne de vaccination ñàkk xale yi altine fukki fan ak ñett ci weeru gi lañu koy tàmbali Papa Balla Gueye fukki fan ngir daal di taxaw temm jëlee fi feebar bi di ngas ci diwaanu Touba lu ëpp téeméer ci ay cas yoo xam ne jot nañu ko nemmeeku ci gox yu bari loolee tax na toogaay amatul suñu sukkandiku ci Yacine Fall mi nga xam ne moom moo yor lépp lu jëm ci wàllum soins santé primaire ci district sanitaire bu Touba ngir fexe faagaagal feebaru ngas gaynde si bi nag ku ko dégg bu duggee ci sa dëkk waratoo nelaw kon ñu xam ni nas moo dellu siwaat ngir jële ko fi nag du lenn lu dul ñàkk xale yi nga xamante ni ñoo ñoo waroon a ñàkku te ñàkkoogul dellu si bi dañoo jàpp ne rek ñàkk ñàkk bi moo ko waral parce que seetlu nañ ci ñetti at yi weesu Euh, wayjur yi ni ñu waroon indi seen doom ci bërëbu euh, fajukaay muy poste yeeg centre de santé yi nga xam ñooy ñàkk. feebar goo xamante ni bari na ay mandarga yoo xamante ne noonu lay ñëwee ci xale yi doon loo xamante ne lu jara bàyyi xel la. màndarga yu yu fees la ndax nas ki nga xamante ni dal na ko li jiitu ci moom yaram bi day tàng tàngoor woo xamante ni daf lay jaaxal day mel ni ku soj tamit soj mu ànd ak bët yuy bas day bas yenn saa bët yi mel ni lu am laas. xonq waaye tamit yaram wi loolu tamit lu fees la ci ngas ngay gis yaram wi tàmbalee def picc te picc yi day daj yaram wi yëpp du bàyyi fenn boobaa nag nga xam ni sa doom mi ngi tàmbalee am ngas loolu itam bokk na ci campagne ndax da ngay jóg yóbbu ko ci barabu fajukaay yi ñoom ñu taxaw ko ngir bañ egg foo xamante ne daf lay jaaxal campagne ngir fagaru waaye itam ñekk xale yi ñu nar ko doot ci fukki fan ak ñett ci weeru mars gi ñu nekk ndaw yi nga xamante ne ñu ngi am juróom benn weer ba juróomi at ñoom la ñu fas yéene ñàkk lépp rek ngir fexe ba feebaru ngas bi du daal law bu baax baax ci biir dëkk bi wet gi nga xamante ne muy téeméer boo jël juróom fukk juróom yi daal di ñàkku ci diwaanu Touba Papa Balla Gueye Touba rajo Futur Média. sport beeg Cheikh Tidiane Diagne maa ngi lay fay Barthélémy Ngom dañu koy dal di doo rek wàll football ak Coupe d'Afrique des Nations junior bi yëf yi nag ëllëg la nar a jeex gannaaw final gu nar a dox ci diggante Sénégal ak Gambie. yëf yi nag danañ ko dal di amal incha ci bu 17h jotee maanaam tàkkusaan fii nii ci heure Ndakaaru diggante ñaari équipe yooyu la Sénégal nag mu ngi ci wàccaay gi ni ki démb sax daal nañu amal ab séance d'entraînement ci complexe Jewel Sport City nekk ca Caire euh, ci teewaayu njiitu fédération sénégalaise bu football di maître Augustin euh, Senghor fàttali nag Sénégal ak Gambie euh, gulet nag ñuy tase si stade gunimel Sénégal sax bii mooy ñeenteel yoon muy tegle di final compétition gunimel waaye masu jël ba tax na fi mu toll nii daal euh, njort nañu bi yoon war na mën a baax lu ci man mënti am jàppale nii lii di match de classement bi di troisième place bi danañ ko daal di kon bokk amal niki tey yi incha allah ci bu 17 heures jotee diggante Tunisie ak ñii di waa Nigéria fàttali Sénégal Gambie Nigéria ak Tunisie ñoo fas yéene kon bokk teewal. Afrique ci euh, coupe du monde bu ñu jagleel googule catégorie di équipe nationale junior yi ba tey ci wàllu football ak Sadio Mané moom nga xamante ni lii di association nationale de la presse sportive euh, moo ko sargaloon fan yi lay weesu woon euh, lu bëree bëri yoon sax daanaka juróom-ñaari yoon moom Sadio Mané daal di jël titre meilleur joueur waaye euh, gulet nag ñu daal di amal ab déplacement fekk ko ci Munich foofu la ci Allemagne jébbal ko li nga xamante ni daal moo di raay yi moom nag Sadio Mané gannaaw ba mu jotee lu ni mel daal dina yëkkate ay kàddu ñu déglu ko. lu bu baax taxawaay presse sportive bi nga xam ni moom moo nekk ci Sénégal waaye tamit di delloo njukkal ñi nga xam ni ñoom ñooy fansi yi ci coono bi nga xam ni saa su ne ñu daj ko ci ñun di yokk tamit di sant ñi nga xam ni ñoom laa nekk ndool club nekk ak ñoom tamit équipe national ndax ginnaaw yàlla ñoom ñoo tax ma jot raaya bi donc tey sama xol sedd na trop. Sadio Mané di ballon d'or sénégalais jotoon ko jël ci atum 2014 2015 2016 2017 2018 2019 ba jàpp 2022 maanaam euh, ci xayma daal juróom-ñaar yoon la ko dal di jël loolu nag di ab record ba tey wàllu football ak Ligue Europa huitième de finale aller yi ni ki démb la ñu ko doon amal. ay Roma moom dafa daal am ndam ci diggantam ak Real Sociedad bu Espagne ñaari bal ci dara Sporting euh, Portugal ak Arsenal démb dañoo daal di match nul deux buts partout Union Berlin di équipe bu Allemagne daal di daan Union Saint-Gilloise daal match nul ak Union Saint-Gilloise naa am ndam lu yaa ci diggantam Betis Séville bu Youssouf Sabaly ñeenti bal ci benn Youssouf Sabaly match bi jeex Juventus bu Turin moom mujj na am ndam ci diggantam ak Fribourg di doomu Allemagne benn bal ci dara seen bi nag ka dugal moo di Angel Di Maria. bu loolu weesoo ñu daal waxtaanee wàllu boxe ak championnat d'Afrique zone 2 ñu koy amal. Euh, fii nii si euh, centre d'exposition nekk ci Diamniadio euh, jàppale nag Sénégal démb ci jogante yi nga xam ne mu ko doon amal ñett la woon ñaar yi dafa daal di lajje waaye benn bi mujj na cee am dam ka ca gañe nag moo di Cheikh Ahmed Tidiane Diop dañu koy daal di déglu ci micro Abdou Diouf Junior oui combat métoon na trop parce que Cap-Verdien dafa dëgër dafa endurant mais tamit il est puissant dafa am doole mais voilà techniquement maa maa gënoon te tamit suñu coach équipe nationale mais tamit comme sama coach individuel Souleymane Mbaye c'est la première fois mu gis aussi c'est la première fois ñu daje man moom ah, voilà te voilà li mu mën mooy entraînement yu métti gars yi nañu regroupement entraînement yu métti ñun ñëpp ñu ngi suñu ngaami dafa dem ndax entraînement tam te liggéey rek koy wax ne préparation yow moom mënul nekk parce que suñu coach yi lu ñu teg dafa métti dañuy dem ba mujj ba voilà ku ci ku ci fi da ngay taw parce que entraînement dafa métti parce que ñëpp xam nañ ni nokkul loo xamante ni football la wala dara yow yaay yëg soo entraîné wul su demee sa morom bi entraîné nga fekk te ñaari góor yi entraîné xeex voilà bu ñu entraîné normalement problème dafay am. di jaajëfal abdu Diouf jaaj moom nga xamante ni moo daal di taataan na le euh, kaddu ba tey ci lu jëm ci wàllu tournoi googule euh, ki nga xamante ne nag moo di euh, Souleymane mbay moom moo jiite ligue professionnelle bu boxe bu Sénégal moom nag am na ay kaddu yu mu jot a yëkkati jëmale ko ci jongante yi nga xamante ni démb ay ndawam daal nañ ko amal ci googule tournoi de boxe bu zone 2 ñu déglu ko Souleymane Mbaye ba ñaari défaite soo xoolee bu baax première défaite yi c'est vrai que leer na deuxième défaite bi man dama lay wax manque d'expérience moom 19 ans la am premier round daf ko gagné deuxième round dafa bàyyi boppam dóor mu sonn xam nga soo sonnee nekkuloo vigilant loolu moo tax mu ñu laal ko donc je pense que soo xoolee bu baax si combat boobu perte ñu parce que faut dire les choses mais dañuy xool suba lu ñu waxoon ak fédération et l'entraîneur national ñun médaille olympique la ñu bëgg médaille olympique donc comme on dit reculer pour mieux sauter si défaite boobu day baax si moom pour mu dem xam na tey round par round na nga koy gérer na nga koy gagné mun na loolu day koy dimbali suba. non entraînement condition yu baax parce que moom euh, entraîneur national bi daf ko doon préparé ak fédération on ko def pendant un mois un mois et demi en amont noonu ñu doon entraîné ay euh, Ibamar après ñu def regroupement pour ñu ñu gérer xam nga groupe parce que boxe euh, sport individuel la mais esprit d'équipe la donc li soo gis soo xoolee sax combat yi ñëpp nañu boole poussante pour que incha allah ñu am dam et ñu am confiance. ok kon boog euh, Barthélemy fii la ñu koy daal di yemale xibaaru tàggat yaram yi. xanaa na nga nam ma Abdou Diouf Junior. waaw xel xel may dem ci moom xel may dem ci moom Abdou Diouf Junior ñu koy ziar. passage ah, tey jii euh, bi lan la antenne libre la. waaw tey antenne libre naa woote waxee sama wax sama xalaat. ayca yow kay ah. wala nga ñëw toog. baax na toog rek technicien boobu nga war a def la micro bi jarul woote a na ma toog wax li ma bëgg man itam <laughs> ndax fi mu toll nii ñu ngi ubbil askan ñuy wax waaye ñun itam am na li nga xam bëgg nañ ko wax micro baa ngoog waa kay ba ma tàmbalee su ma tàmbalee rek à tout à l'heure woo ma rek rajo askan wi ñu tàbbi ci xibaari aada yi ànd ci Kana Rocha maa leen di nuyu mbokk yi orchestre national bu Sénégal moom itam mu ngi delloo njukkal jigéen yi dina amal ni niki ajuma ji ab concert sargal jigéen ca maison de la culture Douta Seck dañ ciy déglu Adama jalo directeur orchestre bi moom moo jël initiative bi sargal jigéen yi directeur de cabinet moo ci jàpp ba mu taxaw fekk ñun dans le cadre suñu mission yi ñuy def orchestre national dafa fekk ni ñu ngi woon atelier musical di recevoir benn chanteuse franco-allemande bu fi nekk bu tudd Iris Minos moom day jëlaat woy Jacques Brel yi di ko woyaat parce que mais ñun ñu ko accompagner di ko accompagner ak suñu instrument traditionnel dugal ci tama dugal ci percussion dugal ci kora avec des choristes femmes même un spectacle de danse dina accompagner loolu loolu yëpp mu dugg ci sargal jigéen ñi mais ci diggante bi Kialoum dina woy xew-xew bi euh, amicale des femmes du ministère de la culture et du patrimoine ànd nañ ci seen njiit Awa Maraba lay wuyoo parce que ñun suñu particularité euh, amicale dañuy yëngu si ay manifestation culturelles dañuy yëngu pour jëmmal cosaan ak aada dañuy yëngu tamit pour que suñu doom yi xam site ak monument historique yu nekk Sénégal tamit dañuy accompagner activité ministère de la culture. concert boobu kon war na tàmbale bu euh, juróom-benn waxtu ci ngoon jotee ajuma ji itam la ñuy amal vernissage fresque murale euh, bi ñu euh, réalisé ci juróom-ñaareeli édition projet passerelle mu di projet boo xamee ñu ngi koy jégleel promotion ak tàggat jigéen yi yëngu ci wàllu culture benn yi dañ ci déglu. artiste graffeur bi di euh, Docta moom moo taxawal projet passerelle. ni ko góor di indee noonu la ko jigéen di indee même deux fois dix fois plus maintenant dans le secteur du graffiti. Mm. on a constaté que y peu. et peu boobu dañoo bëgg mu jeex. et quand on a fait l' appel à candidature bi ñu woote na gars yi ak ah, ñëw leen. Aliou Ndao wax ma mais grand. donc là euh, appel à candidature on en a plus que ce qu'on de voir qu'il y autant de femmes. autant de dames demande bi mu ngi woon fii. c'est juste l'offre qui n'était pas présente. tu sais et puis li neex mooy yàlla dafa nekk loo xam ne ay mbiram kenn mënu ko natt kenn mënu ko natt moom day def une sélection naturelle. ñun ces exécutants dañuy topp rek suivre. Mm. mooy que ne quand il y a eu ces ces vingtaines de personnes qui ont resté sur les cinquante parce qu'on a fait une sélection aussi yemuñu rek ci former leen sur le graffiti dañu ne boo nekkee graffeur ba pare war nga mën a développer nekk un entrepreneur nan ngay comporter pour nekk leader dans cet environnement là mais loolu yëpp li ko gën a neex mooy nga gëm sa bopp xam yow yaay kan foo ñëwul sa ñàkk ñëw nan la fay manqué waxtaan gi ni mu gën a yaatu ëllëg samedi docteur ànd ci ak artiste bi di Dacha ñooy doon suñu gan ci seen magazine xalam di leen jaajëfal bu baax a baax ci déglu bi dig daje ëllëg incha allah CCPS, comptoir commercial de plomberie du Sénégal. Malaysia UMO, soumari.com. ak savon de Alfi ñoo leen may li ci yéenekaay yi. yéenekaay yeeg Mamadou Mouhamed Ndiaye. jërë ngeen jëf Cheikh Agibou Soumaré ma ñu yendal démb ca police ba mu mujjee ci garde à mi ngi ñuy wax li mu wax enquêteur ya ko woolu woon ubbil yéenekaay bi ginnaaw lettre ouverte bi mu bindoon ba doon ca laaj ay laaj yoon di woon ci réew mi taxoon procureur de la république Abdou Karim Diop santoon waa sûreté urbaine ñu woolu ko ngir mu wax leen li alxuraan lu mat ñetti waxtu l'observateur ne nañu Cheikh Agibou Soumaré janoo na ko ak njiital sûreté urbaine commissaire Bara Sankare ak i gaayam waaye daanaka laaj bu ñu ko laaj rek mu delloo leen ko nee leen affirmé dara confirmé dara te waxuma benn yoon waxi preuve ay laaj la samp en ku jiite ab mouvement politique toog di déglu président de la mu tontu ci libération nañu ca foofee fa ko jàpp démb moom Cheikh Agibou Soumaré sonn ci Bara Sankaré di waa urbaine ñu garde à ko keneen ku fi masa doonu premier ministre ci Sénégal di Abdoul Mbaye neexi tubaab ni ñu ci xët mu njëkku libération moom Cheikh Agibou Soumaré laajam yooyee laaj bu mu ko wékkoon yi mu xam nuit noire yéene bi ne nañu moom la dundu démb le quotidien nañu Cheikh Agibou Soumaré laaj ya mu doon laaj am na tontu la démb nee na enquêteurs yi moom Cheikh Agibou Soumaré tuumaalul kenn te dëggalul dara njoxtam la doon demee ñu dem ci xët mu njëkk Source A mi dem ci wax ji ba dañuy wax ne premier ministre ba woon di Cheikh Agibou Soumaré àdduna mi ngi bëgg tukki nekk garde à vue ci la mujj ginnaaw bu ñu ko dégloo bu nuppi delluwaatul këram ñu dellu ci l'observateur fekk fa kenn ci ewokaam di maître Mame Adama Gueye nee na fa ba fi nekk ni enquêteur yu yi mi ngi ñuy xamal ne xamal na leen li nekk ci lettre bi yépp moo ko wax da koy assumer dafa am lu leeru ci boppam mu di ko laaj président de république te loolee am na ci droit en tant qu'homme politique en tant nit ku jiite mouvement politique ab avocat di maître Mame Adama Guèye nii ci journal Bës Bi Le Jour ab kiliyaanam di Cheikh Agibou Soumaré li ko enquête kat laaj joxe na ci ay tontu yu leer nañ li indi coow li di xaalis bu toll ci ay kilifa yu ñëw ci réew mi loolee yàgg na Sénégal dafa mel ne aada ci réew mi yéenekaay bi dañu fàttali maletub genn wàllu milliard bi fi Abdoulaye Wade duyaloon Alex Segura waa kër Abdoulaye Wade di waa Parti démocratique Sénégal jigéen ña ca nekk journal La Tribune mi ngi ñuy wax ne tànn nañu Karim Wade investir ko def ko seen mbër ci élection présidentielle yu keroog la woon 8 ba ñuy màggal journée de la soxna Waré ak ñi mu àndal woote Bakel usuy wili ngara jàpp Ndakaaru ñu daje ca permanence su parti démocratique Sénégal journée bañ fa doon màggal far mujj soppali ko doonub congrès fa la madame Waré ak ñi mu àndal investir Karim Wade dëggal ne mooy doon seen candidat ci élection présidentielle jigéen ñi ak seen bés boobee ñu doon màggal ci réew mi la mi ngi ñuy wax ci xëtamu njëkk keneen ku ca ràññee ko bi nee nañu mooy directeur général bu COUD Maguette Sène mi jiite mën a moom seen bopp mënal seen bopp bopp yéenekaay bu waaye xëy xool fekk fa waaye yeewi askan yu bokk ci ñoom l'observateur mi bind ne waaye yeewi li ñu fas yéene mooy gouverner république bi nee nañu talaata jii di ñëw fukki fan ak ñeent ci weeru mars méga meeting la woote ci ëllëg sa di àllarba fukki fan ak juróom ci weeru mars ñu amal ay doxi ñaxtu di marche ci ñeent fukki département ak juróom benn yi ci Sénégal journal L'Info dañu xamal ne démb lañu ko xam ne ñoom leader yu yeewi askan yi ba ñuy amal ab janook taskatu xabaar yi kàddu bi mu fay leeral ne woowu na nit ngir ñu dem ca palais ba jëlee fa président ba fa na ci ab guerre civile mobilisation pacifique la ñu woote ndax am nañu sañ-sañ bi dolli na ci moom Ousmane Sonko ne xaaruñu ci autorisation am ko ak ñàkk ko la ñu yamale maa ngi waxit képp ko xam ne yaa ngi may déglu jox naa la ndigal ngir suñu yeggee ci bés ba nga wàcc ci mbedd mi mobilisé wu wàcc ci mbedd mi amal sab marche bu fekkee dañoo bëgg ku ñu jàpp nañu ñëw jàpp ma man mi joxe ndigal li vox populi nañu fukki fan ak ñeent ak fukki fan ak juróom ci weeru mars waaye yeewi li moo di jaxal mbedd mi journal bi duñu fàttali ne ci ëllëg sa di yem ak fukki fan ak juróom benn ci weeru mars ci la Mame Mbaye seen coowal Prodac CCPS